waaye ki nga xam nag moom moom lay yebal moom itam moom maqaama Ibrahima ci jëm moom te nag maqaama Ibrahima kat moom lay wax ne man daqaloo kaana aminan mm-hmm. waaye waa dul maqaama Mahmoud boobu moom maqaama Mahmoud borom maqaama rek moo ci mën a dugg mel moo ci mën a xaj mm-hmm. maqaama Ibrahima ñu bëri xaj nañ ci moo tax man daqaloo képp koo xam ne dem dugg ci rek moo gën a yaatu moom mm-hmm. maqaama Mahmoud dafa xat moom kenn rek mooy dikk dekk ci benn photo yam kenn du ca toog kursi boo déggee yàlla kursi ba ñaar bokkuñ fauteuil ba ah kenn rek ma ko bokk kon nag yow defal loolu ah amul ngay def de xalwa de ba nga jot sama xamee xamante ni dañu ko dël wa ant ci fekkee yow ba ngay xàgg foofa xaala xaalika yaa nga nekk ci ni nga mel nii rek nekk nekk nit ordinaire rek min xëyri diiqin doo nekk ca xat-xat sangu ba jekk sangu ba set wecci solo ba jekk tuuro sa parfum toog ci ni ñuy waxtaan añe ni bokk ni ñu añe rek ndikke wala xarajin amuloo benn jafe-jafe mhm. wala kasratu mujaat amuna bëri kër kër mhm. yépp cheikh ni ngay defee tarbiya ku la bëgg a na jaar ku bëgg jaar fi nga jaar ku bëgg am li nga am na jaar fi nga jaar rek mhm. wa yarhamu yàlla yërëm allahu taala al arif al busiri imam Boussir mooy bi bi nga xam ne moom la ki doon jàng barki démb muy am sia mm-hmm. aradiya yàlla gërëm ala yoo xam ne coom ay suqaal mm-hmm. fi daaliyet yi ci téere daalim ba mm-hmm. war fatlu lay sa yenaaluhoo mutawassilun bi tawaruin xarijin wala bi tasahudi ah, in qiila saa saaka huwa dawaa u fa qul koolu sayhi xilaafa koxalil armadi yamsil musarifu ajsaa wa xayruhu yamsi bi hukmil hajri masya mas mas mas fadi misri yu boo siri moo yox mu ne wal fadlu nga neel lay sa du ko amee mu tawal si cay bëgg a jokk bi tawaru en ngay naan maa ngi sàmm xërijin bu tiis bi maana nag bëgg a sàmm goo xam ne dafa tiis ngay dem de lekk de wow dugg ci yooyu mu ne ngeneel duñ ko jëtti loolu walla bitti saw di ngay dem man daal maa dëddu àdduna dëddu àdduna ngeneel kenn du ko jëtti ci ñu ne ko ah boo siri yaa ngi wax lu ñu wax mu ne inqil inqila bu waxee ne saaka sàmm ak dëttu woomam addawa u mooy garab wali yàlla yi kat loolu li nekk garaboo bësriw ku la wax lii fokkul waxal loo ñel ko këlu say yi tës nga lu koo xam ne dafa wér xilaafa këlil armadi wut naa koo xam ne mooy tës nga lu ko ku wanant xam nga jigéen yoo xam dafa rafet bi ñu nekk muy muy maki maquillage fii kooku maquillage ku wér la boo déggee ne ku warante moom dañ ko am benn ter tersinal boo xam ne ñu xaar ah, li de boo ko rëdd sa bëri man sa sa sa sa bëri ah mu lemu kon nag bët yooyu métti nañ koy tësngalee boo ko doon bët ne boo doon fa wér jar kooku dafa bëgg a noos yi moom muy muy mag yow ba jeex bokkuñ de kon nag ñi ñoom dañoo wér kàng rafet lool seen tasngal moom lu gën a rafetal la yem si dana dox almustarifu koo xamante ni mooy aji suppar ji xay sooy saa ku ko neex ki nga xam ne mooy borom suppar mi ki àgg ci maqaamam lu ko neex doxee droite gauche kanam ak gannaaw ah kooku day moom fu ko neex dox woo koo xam ne moom nag du lu ko neex def yem si dafay dox bokkumil xajari ci doxina koo xam ne dañ ko dafa nag xam nga xajoor mooy firi doj mooy kuñ toree masjid musfadi kem doxinu koo xam ne dañ koo euh, dañ koo dañ ko jéng kuñ jéng tànk ya xam nga buy dox dox ba day mitti kooka nag koo xam dañ koo dafa dafa dañ ko liberté dañ ko may liberté bu ko neexee droite droite gauche bu ko neexee avant ak arrière bokk nag koo xam ne moom dañ koo tëj amul ay tànk yoo xamante ni dañ koo lakk dañ ko tëkk dañoo takk tànk ya mënut a dox ba sëriñ moo woyoo mu ne ah kon nag ñooñu mooy ñan ñaa ne ñoom dañ leen tinki ah mooy ñi ne mooy asaabu cheikh kenn tënkul leen moo tax ñu ne kon nag ko antum ah mulukul ard yéen yéenay buur yi nit ñi dañ daan sonn bay bëgg a dee doo nga xam yàlla yéen ngeen dikk rek ci seen waa ji nga xamante ne ku ko topp dangay xam yàlla saa nga dugg xalwa lii nag mi ngi nii kon waqaal wax na fil jaabi tontu asaafi wala téere bu ñu tuddee jaafu soosi falam yëpp xaa desut li ma ñeel koo xam ne saaxoo jiital na ko saayiqu saadati conducteur boo xamante ni mooy conducteur xam nga saayiq ci arab mooy conducteur mu ne desut ci koo xamante ni safoor sànq koy ci texe ilaa du xool yi jëm ci dugg fiaa ci tariqati ci biir yoon al ahmadiyati bi nga xam ne mooy safoor eh, mooy safoor safoor nag mooy ku njàngal conduire ba jox ko permis mm-hmm. moo tax moo tax lijaasa yi ni nga gisee tey da nga gisee xam ne mën naa mën naa am na sam na safoor demoon fa ñu conduire mm-hmm. mooy ah, permis permi permis jand yi xam nga léegi mi ngi bëgg a arrêté fi mu ne nii permis jand <laughs> <laughs> léegi nag ah pay bee demee nii nag pay bi dina fi ne pay bi mooy na fi ñu bëgg a àq si fi ñu nii <laughs> dégg ah diggante bi yëpp pay bi permis ah moo fi nekkoon waaye nag pay bi arrêté loolu léegi tey fi ma waxee yow nii su nit ñi xamoon dañoo xam tey permis yi ñu fi jox muy lijaa lijaasa yoo xam ne lijaasa sagar yëpp amatul benn njëriñ ah comme ni nga déggee ma ko ak sama sama sama mbind yi ci des ca Canada benn boo xam ne mu ngi bokk ci pays bi mm-hmm. ah wala boobu moom laa ci Europe daal Baraam Diop neen dafaa dem mm-hmm. benn taalib murid na ko man de Baraam am naa seen lijaas yi mu ne ko ah noo def ba am ko mu ne seen gars yi de kenn fi dikkoon mm-hmm. doon def benn waxtaan ba mu pare mu jox nag séddale lijaas yi ci laa jot sama bos seeta boobu lijaasa yow ko defu jàngut ko ngir nga def jox ko lijaasa mi ngi nii nag léegi nag safoor si nga xam ne ñooy conduire yu texe yi ñoom ñooy conduire yi ilaa duqool yi jëm ci dugg fi si tariqati bi yoon tariq bi yoon ban tariqa al ahmadiya bi nga xam ne tariqa ahmadiya wa jësaboo jës bu na ko te mooy xëcc na ko jaasibul inaayati ki nga xam ne mooy xëcc ci jagle ndax foo diggee ak jës bu rek du yow yaaw yaa defal sa bopp xacc dañ laa xacc ne kaay fan la ko safar fan la ko safoor ba indi safoor ba da ko indi ci tariqa bi ba duggee ci biir nag ñu xacc ko ne ko kaay dem wuyu wuyu euh, ki ki nga gën si fan la ko defee ilal inqiraati mu bokk fi silki alihaasihi silsilati ba mu dikk mu mu lën mu lonku inqiraat mooy lonku ci ceen bi nga xam ne mooy ceenu seen bi nga xam ne mooy seenu muhammadiyati al muhammadiyati moom jës bu hinaaya mooy xacc sa ceen gi lonk ko ci ceen gi nga xam ne ma nga lonk ci muhammadiyati wa ali ak ñaa xamante ni mooy waa allahu laahu moo def loolu laahu li ma la wax nii laahu mooy safoor bay kondir gaaya jaas bu hinaayati moom la moo def lii xëcc la ba nga di kaay fii bokkal ci gaay yi ah, bi fat lii ci ngëneelam bi musaadati haasihil xususiyat nag bañ dikkee nag dañ laa wan jagle yi moo nekk allongement yu mag yi bu dikkee la eh, xam nga xam nga lu tax nga dugg ci tarix yi mu ne ko dee mu ne ko kaay moon la ko mm-hmm. mu dikk wan la xususiyat yaa mooy xusaasiyatul osma mm-hmm. wa awqaha mu dugal ko bi jóodi ca tebem nga xaalaa asal kën si ci biir kënsu al asam kënsul asam bi nga diggoon ba waxoon ne man maa ngi nekkoon ci biir këns kën si xam nga kënsu ka nekk ca magasin dafa borom magasin moo ko dencoon ca magasin ba laahu nag mooy borom magasin ba mu am kum dencoon ca magasin ba kenn gisu ko yow na boo dikkee ba dugg ci tariqa bi laahoo lay jël ci kondire la ba nga jëw mu xacc ba nga xagsi mu ne nga doon seet a ngi nii mooy kënsil asam wal soxru mooy denc ba al asma bi gën a yëkkati dëgg la dëgg dëgg yàlla ah foofu mooy denc ba kaay denc ba nga gis doon mu nekkee noonu ilaa an yàlqaa ba sànni moom taalib ba bi doxam ba ilaa sal oustaz jëm ci biir oustaz al asam seetal kon xala xam nga ba xam nga bàyyi feeñal na loo xamante ni boo ko seetu waaw ki nga xam ne mooy alkëntil asam wa suxurul asma kan la mooy ki xam ne taalib bu dikkee moom lay jox biir doom ba ne ko jàppal laaxoo lay kondir ba nga dikk mu xëcc la ba nga agsi mu daal nga dana mu wan na ki nga ne mooy këntul asam nga dikk nag moom mooy këntul asma asa mooy denc ba gënoon rëy nekkoon ca biir magasin ba ñu la xam nga kii mu naa ma kii ma seen ustaas acca jàppal ci kii su ko defee fii la ilaa hasal ustaas asam wa mu su ko defee mu mu mooy mu motle alaba bi foofu nag ba muy dox nag ba ngay doxa doxa doxa dox ba dikk agsi ustaas bii nag moo la taxoon jot du oustaz Guèye du Samba Diop du Demba Diop moo tax ba moo tax man yarifun yarifun wax di booba fii oustaz bii moo wax wax ji ah ana rajulaha min xaf ila xaf oustaz bii la koo fi dugal kudut kii soo ko toppee doo xag si rek mooy kondirkat bi nga xam moo lay kondir laahu rek mooy borom gis bul xinaaye moo moo moo mën mën a xëcc ba andi ci waa ji ji moom moo ko dencoon moom moo jëloon def magasin denc fa waa ji moo dikk ban la waajaa ngi nii booba nag fa yaxtama ala babi foofa nag lay pare nag taale bu dikkee foofu waa na ila rabbika muntaha foofa nga yem rabbi moom boo dikkee ba dox na ah du ma nag waxuma la moo kon moom la su ko defee nag woo yàqifu dafay liitikaaf dafay sax xaala ataa bi ceeg côtéem lu mu ko fay saxee xaalaa tariqi mahabati yi ci yoonu bëgg ko mbëggeel ko xam ne da ko cay wiital nag fa wallahi laa tulfa li ahmad saniyam billahi ñaari ahmad gisoo ma ko man de man de bi ma dikkee ba ci biir magasin ba kam fekkoon ci kën see ba fekkuma fa keneen moom rek a am bàyyi ñes rek xam nga ne boo diggee wax xam nga balaa ñoo xam góori yàlla yi dañoo dégg seen kàddu ku ci wax rek ñu xam ne yow ak yow dugg nga koo ak koo xam ne man laa ak see fii man koo wéetalee ci wéetaayam nga moon na boo ne boo ne man wéetal naa boo ne man taalibi Cheikh laa ba kookoo de mm-hmm. ndaxte dugg ko ci ah, kii bi silki bi mm-hmm. ah kon nag xabaxa laa unaasan xareero xay rek saan yi bi nga xamante ni moom moom moom waa ji dox ba dikk fekk fii mm-hmm. bëri na wuyu baay wooy dégg rek fa mu koy bàkkee bi mu dikk mu ko dikkee fekk ko ci ci kansul axsam bi ah ustaasul axsam bi foofu la ko fekkee ne da ko bàkk nag bàkk yi kenn ko koo fekk da ko bàkk bàkk yi mukk kon nag moo tax te ku topp kii pour man koo bàkkee bàkk bu la neexee déglu demal nga déglu téere téere sëriñ yëpp mooy téere arab yaag taalif arab yaag taalif euh, yi nga xam ne mooy européen yaag taalif yëpp africain yëpp ku jaar bunt bi man a bàkkee bàkkin wi wala dégg bàkkin wi xam nga waxuma wax waxuma wax bàkk bi waaye xam bàkkin wi sax moom moo gën a wala xam kañuy bàkk ka ak nu ñu koy bàkkee ka ak ka ko bàkk te ba mu koy bàkk fan la taxaw ba man ko bàkk su ma ko bëgg a xam man itam fan laay taxaw ba man ko bàkk uh-huh. loolu moo am solo man de damaa sant yàlla ba ma toogee aji 87 uh-huh. toog ca diggante maa bayra min bëri waraw di uh-huh. toog ah, dégg nga maa kaw basita monde bii gisuma fi beneen sëriñ si waa sëriñ lu mooy si kaa xam ne mooy sama biir waay kàllaa wala saaniya li seeqare mukk mukk mukk ñaari cheikh am fi benn cheikh rek nga fi am alhamdulilahi rabbil alamin man de wuyu ba ma ko yëkkat xamatuma sax fan la fan la téere ba nekkati mm-hmm. <laughs> man xam nga xam nga bokk maa ni ma ñi man loo xam ne dañ ma ko wax loo su ma ko waxee dama koy bàyyi ko wax rek du ma ci du ma ci sox da ci dëkk yi mm-hmm. kon nag loola la la tax nag gannaaw bu ma tarbiyaa 83 ak li ma gëstu ci tariqa bi ak maa ngi jàpp ay soixante soixante deux soixante trois laa jàpp tariqa bi ba bi may dikk ba foofu yëpp xamoon lii yëpp gannaaw ba ma dikkee ci nga xamante ni mooy bunt bi nag de baabul abwaa bi nag foofa nag laa dikk nag ba xam nag mën a dem tawin kon nag du man man la moom moom la ah kon nag wéetal aji wéetal di laa jaaree ba xam nañuy wéetalee aji wéet ja lii de la mooy xam kon nag nii ngay def nag boo dikkee yow fii ngalawaay boo dikkee lixtikaaf foofu ngay lixtikaaf mooy da nga fay sax xam nga léegi balaa nga ne naam ne fa balaa nga ne maa ngay dem ci fi keneen nga fa gis fa keneen mm-hmm. moo tax fii moom boo fi dikkee da ngay def lixtikaaf mm-hmm. ala ata bi ala tariqatil mahabbati wa taslim da ngay def da nga fa déggee mahabba nga fi toogee de mm-hmm. wa taslim ak jébal ko sa bopp ak lan wa sël bi da ngay da ngay da ngay summi lépp luy nameel laxoo wala bokk wa sulbul iraadati laxoo nga dëgëral dëgëral sa nameel gis nga baatu arab sin bi boo ne sëlbu mooy summi boo ne sulbu mooy nga dëgëral kon nag fii ñaari taxawaay nga fay taxaw da ngay summi xëyri yaat yi mooy sëlbu nga dëgëral sa taxawaay bi mooy sulbu ca buntam nag bëgg ko bëgg koo xamante ni dara du la déranger du ab yonent du ab waliyu du ab kenn kenn kenn kenn kenn nga am fa sunbul iraadati loxo waxtaan kii mi nga xereñ nag taalibe tijaaniya dafay xereñ xereñ mooy la xam fii niñ fay yàqulee nga moytu ne ko yàqule fii niñ baax baaxlee ngay topp baaxee loolu mooy yoon yoonu tekkim ah ak lan su ko defee wuyu daay mu defete ko xaalal yu di ca wiir daawa moom ustaas ba al muhammad yi yépp ne wirde muhammad yi la wirde lu may tekki mooy rooteekaay ba gis nga course boo ko jàppee di rokk-rokk day mel na teen ku jël bu bu buy takk ngay xëcc ngay xëcc nag moo tax boo boo ne man dinaa nekk tijaan te du ma dee benn ah, mu ngi mel na maa ngi root benn baag da ngay buum da ngay eh, goj bi ak baag bi ah moo tax fa arselo waaridahum ñoom ne noonu bañ dikkee seen rootkat ba lañ ne ko demal rootal ñu moo tax booba ñi ngay jàngale yow taalibe bi da am koo xamante ni boo mënta am ba àggal sa bopp uutal ku la rootali ku mën a root nag xam rooteekaay ba boo rootee génneel la ku mel na ka e, Yuusufa ah xam nga rootkat yi mënuñoo génne Yuusufa <laughs> <laughs> rootkat boo xam ne mënta génn mën na la génneel sa yuusu ga loola yow lay wane xamuloo ne yow sa bopp ba nga sànnee root ya dem ca rooteekaay boo nga génnee yow yaay yuusu fa xam nga ba nga génn ci sa nga yor doon wax yow yi nga doon génn génn génn nekk nekkaat yooyu boobalee yaa ngi ci yuusu ñu lay ñu lay dóor sa doomi bàyyi di la dóor di la génne di la sànni di def yëpp loolu sa mooy xëy yaay ñu nga pays pays pays pimpam bii xam nga doomu aadama pays pimpam la nekk boo ko mbëkk buñ ko mbëkkee mu yaay kële na ko mbëkk mooy bakkan bakkan ak seytaane moom la doomu aadama nekk sa diggante su ko seytaane ba ma mu dikk ci àdduna àdduna ba ma ko mu dem ci seytaane mu nekk si rek wiiri waara bi rek <laughs> wii bi nekk yàq yaay wi waaba ji waaba ji waaba ji bi fa lay nekk rek su ko defee nag boo dikkee ci wird wii nga nekk nag ca wirdoo nga xam ne almuhammadi asarifati noo koy defee bil muhaafasati da ngay sàmmante attaamati gu mat xalaa suróotea sarta yu de wi almasrooti ndax dafa sarta yu kat ah dafa am noo xam ne boo ko rootee doo gis yusufa maanaam doo am ndox xam nga moom ba njëkkee ñoom lama ma jaaxal xam nga nit ñi dañu seen dëkk sëy waaw moom ba mu génnee fàtte nañ ndox laajatu ndox ndox lañ doon wut waaw yusufa génne ñu dégg nga ko waxal a ndox waxatuñ ndox xanaa kon nit lañ doon xëy na xanaa lañ doon ndox lañ doon <laughs> nag moo tax gis nga képp ko xam ne dikkuloo ci muhammadiyati tijaaniyati bii nga bëgg a xam nag waaridi ak Yuusufa ak dugg na fi ak rey na ak rey na picc ak ñu ma xamul ah, demal waaye déggin wa de kon nag yow nag da ngay sàmmante nga dikk nag ba nga dikkee ci tariqa bi rek nga def nag gannaaw sa àgg naa ci yàlla li ma xam doy na ma damay toog Ibou Diouf na muus leen boobu may gars yi baraham ah kon nag léegi boo demee lii xanaa xamuloo ne ah, dafa am foo xam ne boo rootee boo yore baag ba Youssoupha ngay jot te Youssoupha am lu gën a kawe am na beneen teen boo ca àggee soo yoree mm-hmm. ah beneen waaye bu gën a kawe ngay mm-hmm. na beneen teen ci kanam boo yoree ku gën a kawe kooku kon nag léegi moo tax ñu fa ay moo tax ñoom da ngay taxaw wird bi nag de xay dem ca eh, wird xay ngont xay léegi nag bu ñu paree nag grand assemblée sénéral dañ koy def ñun par bët bu set gàmmu bët bu set nga dem ci nag ah, mbooloo ma nag su ko defee gis nga wasifa siru ba ca nekk mm-hmm. mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon xam nga ñoom par euh, conseil de des ministres par semaine lay def ñun seen bés bi yow mi yan bët bu set groupe bi dana daje ah wax nag li nga xam ne ñu ne ah diw mi di tooñ na tey ñu ne baal leen ko mm-hmm. moo tax mu ne bokk na ci ngëneel wasifa mm-hmm. ah euh, nga am safa at rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu defal la intervention fekk na bëccëg bu keroog def nga loo xamante ni mm-hmm. boo doon fonctionner xëy na sàcc nga kees wala ne ko ci leneen yoo xam ne boo doon nañu laa defal audit jàpp la wala boobu def nga tooñ nga yàlla tooñ ngoo xam ne war nañ laa rikki ñaar yooyu yëpp dañu ci musal moo tax nag damay wax ne ku sax ca wasifa yow mi yan nga dégg na tëj ñu ko kaso soo ko soo ko déggee nga dikk na ma diw la <laughs> bu dee rek waxuma tijaan laa de tijaan laa waxuma ko <laughs> tijaan ñi nga tëju ci kaso ya ah. bëri bu bëgg a dee ñu tuddee tijaan laa wax ñu tuddee waaye tijaan tëju kaso moom ah. waaye ñu tuddoo tijaan ah. waxuma leen mm-hmm. waaye koo xam ne dafa dikk respecté tariqa bi normal wirdal suba ko wirdal suba wirdal ngol wosuba eh, sikku wosuba jama hadara juma ni dégg la kaso soo ko déggee kaay waxal ah kon nag mbir maa da ngay dem nak ànd ak wirda wa da ko sàmmaani sarte almostroti walu koofu ak nga taxaw bi xaayatal joodi dayob sa man-man xen dafu di fi nga xamante ni mooy limite mooy frontière almat bootati yaa xam dañ ko takk bi maanaa la tariqa ba rëdd xem ne xem ca xemal bul siyaare keneen siyaara dolleeku ah moo xam kuy dund la walla kuy dee ñun nag buy kuy dund kuy dee waxuñ kuy dund kuy dee dafa am ku saayir bii waaye kuy dund fii ni ci tariqa bi mooy ku ci nekk te am fatu ku ci nekk ci tariqa bi te nga am te dee mooy ku ci nekk te amagoo fëtu Ablaye Walo Taaj moo ko firi moo ko bàyyi ko firi moo ko firi maa wax naan ko ba taay du sama waxi oustaz Guèye kon nag lii yow nag yow nag gis nga boo dikkee ba fii nag yow ba nga xam ne xam nga maarifa borom bu ba xam ma aariful ma aarif yow doo demati ci nga xamante ne amagut amagut maarifa doo dem ci nga xam ne mëccub la ya ndaxte yow xamaguñ li xew li doo dem di yokk ko ci moom xanaa booy yokk da ngay dem ci koo xam ne mën laa yokk kon nag loolu kat mooy ci biir su ko defee nag ñu ne bàmmeel borom sëriñ boo xam ne wala yoo xam ne ñu ko rob fii mm-hmm. ah doo ko dem lu tax nag pour sàmmanteeg bu baatin bee tax mm-hmm. moo tax nag kon nag nga def nag nga sàmm koo euh, xend nga taxaw bi xend xudóo di yi almat dootiti xataa mm-hmm. yaasana ba may ndigal allahu yàlla taala loo ñël ko bir fati nekkal nii nekkal nii nekkee nii bañ xool na ngay liggéey tarixa bi ñu ne eh kële may leen ko audience mën naa agsi léegi ji nga fi ne nii képp ku xam ne mayuñ ko audience nga indi ko mhm. du agsi ku amul audience nag bu ne man naa la may naa la audience nga ñëw mu ne man maay ki nga xelal taxaw na jox mhm. xam nga ñu bëri moo ñu def mhm. muqaddal yu bari fi ne ñoom la seen taalibey bàkk ñoom lay roy royuñ bàyyi fecc foo ko royee ci bàyyi ñetti kur foo ko ci bàyyi li nga xamante ni da nga maam jigéen ji da nga maam ak wax yoo xamante ni wax yoo xamante ni waxi naka sa kanam loo ko wax tegaloo ko ci alquran tegaloo ko ci bàyyi déedéet bàyyi lu wax rek daf ak hadis biir pen waaye taawil wuyu bàyyi woo xamante ni dafa suraante man laa teg fa saayir mën laa tekki nga jël na ko man mii nag maa taxoon wuyu ñu ko bàyyi na bàyyi di ko wuy kooko ah, kooku boo toppee ci koom ah doo am audience de billahi ñi amul audience te te ki leen teg audience ñàkkal loo audience dañ topp ko amul audience mu ne leen man la te du moom kon nag foofu ngay nekk ata ya sana laahu taala lahu gis nga laahu maa la jox ndigal de bil fati ne ko eh kooku may leen kooku moom te fekk moom xalaxaal yi ma nga nekkoon ci na mel day bañ lay may audience yaa nga nekk te na nga nekkoon min xëy di xalwa tundu ko la benn xalwa dangaa toog rek ñu ne kàjjet te kàjjet boo xam ne xam nga bi maanaa sa xol ba rek moo yëg yëg-yëg ba mm-hmm. amul xalwa wala mujaadatin du dafa nekk de ngat-ngati mm-hmm. wala xari saalika deful loolu min wujuhil ah, di nga riyaadaati mm-hmm. anam yi nga xam ne ci li ñuy tàggatee taalib mooy entraînement daw cëppi-cëppi bay bëgg a dee doo ko mën a football wala mën a bëri amul fii moom almaro fa di nga xamante ni dañ koo xamoon fitiraay ci la xamante ni moom lañ jubaxoon men ba di sadari ula gannaaw groupe yu njëkk ya tarbiya biñ indiwoon gannaaw euh, troisième siècle tarbiya yu doo ca jaar fii boo dikkee ci tariqatu ahmadiya bii amul loola ah jox ma nangam ba bëggee taalibe bu bëggee kii dafay joxe nangam taalibe dafay nangam lëggeel sëñ nangam nangam kenn du la ko fi sartaal waxuñ ne yow doo ko def waaye sëriñ bi doo ko sartaal xam nga ñun dañ bëgg a dugal amul ci sarta su la neexee nag yow taalib bi moom nga def sa xidma mm-hmm. kooku moom daf lay dimbali trop yaa ko def nag ci sa coobare nag mm-hmm. kon nag doo fi jaar benn yoon boo xam ne moom la gaa yi daan jaar ñaq jëriñu mm-hmm. ñaq wala ñuqi loolu day kenn du la ko sartal fa innahu moom taalibi bàyyi na si ko wax de mi ngi ci cent quinze <laughs> ci ah, kasful kasful albas Oustaz Gueye daf koy wax mi ngi nii amul benn nga ci def nag lañ doon tarbiya taalibe njëkk ya bul ko tarbiya taalibe gaay yi kër Cheikh Tidiane bii ah, fa innahu da nga loolu la de fa innahu moom indaamu bu saxee alay ci moom xaalal wu ci ci façon ci manook ci ci ci anam almawsoo fi giñ melal anam bi ma la melal soo ca saxee imma benn an yaf ja ahoo bett ko alfatu xubbi man na am dafay toog rek bett ko al yax xale yi xujjooman xam nga faja ak xajama dégg nga betteel bett ak mbetteel bett na la benn benn waay moo la bett mbettal day dal na ma mooy loo xam ne yow da taw rek xamuloo ni la dikkee man daal ci mbetteel la mm-hmm. kon nag man na laa am ñu bett la mm-hmm. wala mbetteel mooy hujjoom li baati arab yi sax ah, ci araab mm-hmm. jiw dey bett na ma mooy pays bi mën na laa bett wala nga toog am mbetteel xamuloo la yow li li la dugal sax yow dangay ngay rek hujjoomam waa imaam benn an yamën a xewal àlaw yàlla ta àlla ali ci moom bi rafet ijaab yi mu yëkkati kiraay xan xay nay xalbi yi ci ñaari bëti borom bëti xolom ya fa yësiiru mu mujj yej tamixoo de daje bi ruuxaaniyati cheikh yaa xam ne mooy ruuxaani cheikh radiyallahu anhu man na am ñu ubbi la kiiraay bi nekkoon sa xol ba sa ñaari bëti xol ya na jar di xool ngay dajeeg ruuxaaniyatu cheikh radiyallaahu anhu te nag boo dajeeg ruuxaaniyatu bi kat sa ruux bii moo leen di recevoir ndax gan gu ne natt nga moo koy de moo koy dal te ruux moom bu la dalee bu dalee gan goo rek nga daal nag xam li nga xam ne moom nga daal di xam-xam yi daa dugg nag aw ruuxaaniyatu nabi yi wala ruuxaaniyatu na yi ñaari gan yi daal kenn mën laa dikk feeñu la bu la la ubbilee fanta kono boobaa dafay nekk tarbiyatoo tarbiyaam bi tariqil istifaadati ci yoon woo xam ne mooy yoonu bi maanaa waame min ahadima kenn ci ñoom ñaar benn faydu ruuxu cheikh mooy service sa ruux gi ruux gi nag moo ko bu ko jot dafay service moo lem si cëri wala faydu ruuxu nabi moo dikk ne bal aw minhuma ma an wala ñoom ñaar ñoo dikk branche mu ñuy seetal ma ngay dikk ci comme doole yi doole yi taalibe ba su fekkee ne dafa toll ci moom mëdd mëdd tëbëg seex rek la mën a am ñu jox ko su dee ba tëbëg nabi la mën a yore ñu jox ko ndaxte ruuxul asam ak ruuxul àq fi nekk ruuxul mooy xel mi moom moo jot ruux bi nga xam ne ruuxaanitu seex ruuxul ruuxul àq bi nag moom mooy rob bi nga xam mooy robu xàq bi moom mooy tëb bi nga xamante ni boo dikkee moom mooy tëbb bi nga xamante ni mooy rawul mooy nekk ci kanamam mm-hmm. léegi nag boo leen boolantee loolu moom mm-hmm. ah kenn rek moo ko mm-hmm. mooy xaraa ala sinet Cheikh moom moom moo di ko da jël ah, mu jot ñaari fa yi wasaaka kulun faydatu Tidiane ma ma sa wara naa ne wasaaka kulun ni naan dafa di ko jot yépp moom kon nag aw min huma ma an wala mu jot ñaar yëpp zaalika loolu nga jot mëdd boo xamante ni mi ngi bàyyi ci ruwaanitu kenn ci ñoom wala nga boole seen ñaari rawxaan yi fadlaayi ngëneel yàlla yuuti dina ko jox ma ni saa ko neex yàlla ko neex mu jox ñu ko walaaw yàlla sol fadli mooy borom ngëneel alasimti kat dëgg dëgg la de ngëneel lii mënoo maa neex mënoo neex kenn ba mu yokk laa rek moo tax tey nag man ngaa neex nit ki te neexoo laaxu ndaxte boo deppee boo dekkee di jël bëgg lu neex nit ki ba doo doo jaamu ji yàlla xam nga ne boo bu la nit ko góor gërëm gërëme yàlla gërëmu la moo tax nit ñi nag dañu xamul ne nitu ngërëmaane yàlla ngay ut ci sëriñ bi dafa ko jàngal ba xam na nga koy amee ndax moom daf koo ne ba am ko mm-hmm. nga dikk mu laa jàngal noo koy amee loolu moo tax nga topp sëriñ bi de wama li nga xam ne fi jaay ma àndi mm-hmm. bokk na ci li nga xam ne jaay maan min istiratil dañ lay sartaal nga teewlu photo cheikh radiyallahu anhu aw sóorat nabi wala photo yonent hala xaala sikkar yu di temps yi mooy yu da suñ la waxee ne da ngay teewlu photo ko mas a gis photo man nga ko teewlu ah mu ne Yuusuf dafa la ñu jël asal maanaam maanaam mii maanaam roxaaneetu cheikh da la jox wala ruuxaan it di la jox loolu lañ wax ci koo xamante ko li koo xamante ni xadra atana ala sal koo xam ne mën na loola waaye yow mën ngaa toog mel na jàpp ne maa xool photo Cheikh Tidiane loolu bu ko defee da nga bokkaal sax waaye déedéet ba ngay teewlu sa roxu ko branchante ak roxu euh, roxu euh, cheikh bi wala sa roxu gi branchante ak roxu nabi bi yooyu teewlu nga xam nga léegi ñoom bu buñ la branché rek mi ngi mel na courant ku mba ku ku mbalancé xam nga dootoo yëgati yëre yi benn yëg bi foofu nag mën ngaa teewlu lu courant ñoom ñaar nag bu ñu la branché man laa teewlu lu moom kenn ci ñoom bu la branché wala ñoom ñaar bu ñu la branché ah rotation bi walla benn fil ci rotation bi rek wala benn fil ci cinq fil yi boo koy laal rek bu la laalee ñëpp laal li man koo xamante ne xadra at na ala salika mm-hmm. waqat basata yaatal na alkalama mm-hmm. fi misa bi rahmati boo demee si téere boo xam misa bi rahmati mm-hmm. arabaniti misa bi rahmati arabaniti fi bayaane haa na muy biralee teewlu mm-hmm. wax na ko kon nag lii am na njëriñ lool mm-hmm. boo demee nag bëgg a jël photo teg ko sa kanam xam na ñoo xam ne dañuy jël seen uh, photo bi nekk seen téléphone ah. bu ñu paree man maa ngi leen seetlu waaye waxuñ la lool de <laughs> loolu ko dangaa yëg ñe branché wu ca sa xol ba ak sa ruuga yooyu daal soo ko amee branchement boobu moo teew wa ima benn euh, an yu xëy dogal alaaw yàlla loo ñel ko àqal mbokk fi tariqa tariqi tariqi bi yi nga mbokk lañ tuddee muqaddam mbokk yàlla dogal ko mbokk tari bi su ko defee yàqoo mu mu taxaw bi ahbaay bàyyi yi li nga xam ne mooy sarcement wu tarbiyaam moom moo yenu mooy setal muqaddam dafa war a yenul taalibe bi sar sarcement am bi yaakaar yaakaaram ak foog naa ak defe naa yi nga xam ne moom la jël ba tax mun tey kii nga fexe nag loo ko desarcel foog naa ak yaakaar naa xëy na su ko defee fayee sur mujj bii ci moom maanaam fayee kon dafay dox bii ci moom jëm ci yàlla mu jaar si nag te àlla fi siri yi nag maanaam ca biitam wa ala nit moo dox ci ñaar yëpp kon ñu taxaw ah, fii su ko defee ñu dugalaat bi te sant yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi